ta ngërëm ñeel na la ngeen ñi safoo internet bii di RTV Dakar li gën fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy doo rek brigade de recherche bu compagnie gendarmerie bu Thiès nag daal dina yëkkati ay kaddu rek ñeel dossier kii di Boy Djiné mi nga xamante ne mën nañ koo jàppee nag ndaanaan daal ci wàllum defkatu ñaawteef comme ni ko suñu nattangooy source Seneweb daal di waxee ne nañ nag trio bu mucc ayib rek lañ doon amal waaye nag ni ki démb ci aljuma ji yema fukki fan ak juróom benn juróom daal dinañ leen di defere ci kanamu tribunal grande instance bu Diourbel lañ leen di toppee nag maanaam association de malfaiteurs sàcc gu métti ba noppi rek boole kook nag utiliser ay armes yoo xamante ne rek eh, kenn du ko utiliser ba noppi rek boole ci ay xoxatal yoo xamante ne rek ñu ngi koy def seen tour nag SN la SC ak MD mi nga xamante ne rek ñoom ñoo defoon app eh, trio di def yooyu lee ñaawtee fa jamono ji nag nekk ci weekend bi ñu génn daal dinañ leen jébbal commissariat central bu Bawal laataa ñuy jàkkaarloog juge d'instruction bu deuxième cabinet ni ki altine bi ñu di dëtmal kii di booy jënd nag jamono ji lañ koy toppee dañ ko placé sous mandat de dépôt moom kott dong rek ñu fàttali leen Boy Djiné nag arrêté woon nañ ko moom képp ci ab oto boo xamante ne rek compagnie gendarmerie bu Thiès la woon ci autoroute Ila Touba bi moom nag lañ koy toppee nag jamono ji la ñu koy toppee laata ñu koy yóbbu fi nga xamante ne moom mooy ci prison ni ki mardi bi ñu bi nag dafa amoon ay trois personnes yoo xamante ne rek daal dinañ leen arrêté foofu ci brigade territoire bu Diourbel maanaam daal dañoo am ak link kii di euh, Boy Djiné mi nga xamante ne rek BRT bu Thiès nag ñoom ñoo leen daal di arrêté maanaam brigade recherche bu Thiès moo leen daal di axate du ñàkk rek dinañ ci xuusandiwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci lu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir amaat yeneen i info